salaamaaleykum mbokku téléspectateur Pexxe TV maa ngi leen di jëfal bon tey su ngeen ma gisee fii nii yaakaar naa ni bon kenn du leen wax euh, ki ma toogal nii nii mu nekk euh, benn nit bi nga xamante nii bon yàgg na euh, si biir chaîne bi di liggéey ak li nga xamante ni mooy maanaam équipe bu Pexxe TV ñu koy woowee Iran wax dëgg yàlla. jamono yi nag ñu gis na ni bon gëj nañ def vidéo ak ki nga xamante ni moom mooy Iran boo ne Iran moom da ngay naan moom mooy borom Pexxe TV ndax ba ñuy débuté. ba fi ñuy toll nii nii nii nii nii boo xool chaîne bi am na fenn fu muy egg ginaaw yàlla suñu borom Iran la ndax seen bi sax booy wax sax dañ naan chaîne Iran la ndax booy xool moom sax bu defee vidéo mooy ëpp ñu koy seetaan que yeneen vidéo yi nga xam ne ñu ngi koy def donc mu nekk benn waay bi nga xamante ni boobu ba léegi ñu ngi ànd mu rafet ah ñu gëjoon def vidéo ñu bëggoon ci waxtaan ak moom bon gàllankoor bi nag xam nañ ko ndax euh, si ñun la woon ndax ñun ñi nga xamante ni ñoom ñoo euh, gérer côté technique beeg yooyu noonu ak personnel bi fi nekk gàllankoor bi si ñun la woon nekkul woon si moom waaye tamit lépp loo gis ak moo lu ñuy wax rek bu sooxee tamit am na nu ñuy def ba nga xamante ni mën nañ ko euh, jubbantiwaat wala teg defaraat ba mu nekkaat si yoon bi Iran man ak moom ñoo daan def vidéo yàgg na xam ngeen ko xam ngeen ma waa ah, ñu dem ba toll benn moment bi nga xamante peut-être am lu ñu dab ñu jël vidéo yi jox ko ñeneen ñi nga xamante ñoom ñoo ko doon doxal waaye ñoo ñu ngi ko doon doxal comme ni ñu ko bëggee woon ñu demaat ba toll fenn fi nga xamante ñu ñëwaat tey di def ak Iran vidéo donc mu nekk li nga xamante ni peut-être suñu temps bu ñu mayul woon ñu def ak moom vidéo mayaat nañu pour ñu mënaat ñëw tey di def ak moom vidéo di ko def comme ni ñu ko daan defee ak yéen di leen jox xam-xam si àll bi ndax xam ngeen Iran mooy borom àll bi mooy borom àll bi moom moom àll bi maîtriser nag àll bi xam ci lu bare bare bare bare bare waaye nag loolu noonu dinañ si gën a xuus si kanam a kanam a kanam tuuti ma laaj Iran faram fàcce àll bi par rapport ak biñ njëkk biñ daan njëkk ànd ak jamono jii nii ngeen xool différence bi quoi donc Ilan ma ñëwaat tey ñu war a defaat vidéo waxtaane li nga xamante ni nii euh, moom mooy euh, euh, gëj nañ def vidéo ak tamit waxtaane li nga xamante ni depuis boobu ba léegi moom si lan nga nekkoon gars yi namoon nañ la doon nañ la di la laajte naan Iran fan la nekk fan la nekk est-ce que mu ngi fi wala nekk fi tey gars yi nga war a gisante ak ñoom saafonte ak ñoom lan mooy nekk sa kàdd bu njëkk ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo lay seetaan di la bégg fii ci Pexxe TV salaamaaleykum waa Pexxe TV maa leen nuyu di leen sant gërëm jàmm rek la woon tamit. waaw jàmm la woon après. di leen nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm. gars yi namoon nañ la de Iran. waaw ah, gars yi namoon ko. gars de. wax na dëgg moom ah. xam nga nit booy nekk moom ba yàgg gisatoo ko. mooy la waaye képp ku ma namm si jàmm rek ngeen déggantuma si jàmm tam yàlla defal leen jàmm fi ngeen nekk defal ma jàmm yàlla may ñu wér ak wér la. jaajëf maa yaa ngi si jàmm. waaw ngi si jàmm moom. boobu ba léegi jàmm la woon. waaw jàmm la woon. amul woon benn jafe-jafe. maa amul woon lu si yow sa yaram wala affaire yooyu feebar ak yooyu amul woon. non non. Ah. Ah. kon ñu ngi lay ñaanal yàlla nga gën a nekk si jàmm jooju noonu ah mbokk téléspectateur Pexxe TV yaakaar naan dégg ngeen Iran donc euh, mu ngi leen di bëgge waaw ah, comme ni mu ko waxee rek euh, di nammantiku ak yéen parce que tamit lii lañ am parce que dañoo nekk ay euh, nit yi nga xamante ni ñun pour ñun lépp li nga xamante ni gis nañ ko mu baax si askan bi war nañ ko mën a jox askan bi askan bi jëriñoo ko te Iran dafa nekk benn waay bi nga xamante ni dafa baax si askanu Sénégal man dama koy wax chaque jour dafa baax si réew mi baax si nit ñi ñu bari bu teg ñu bari nekk nit bu naturel nekk nit bu dëggu nekk nit bu sincère du la wax lu munul du la wax lu munul du la dig tamit lu nga xamante ne xamu ko wala maîtriser ko wala munu ko tamit donc mu nekk ki nga ne ku neex àndal wax dëgg yàlla Iran ñu yàgg ànd man ak yow euh, ñu toog lu yàgg àndatuñu tey ñu ñëwaat war defaat vidéo yi ba ñu njëkk ànd ak ba nit ñuy tool nii bon est-ce que changement am na ci diggante bi wala amul ci diggante bi mooy bi ñuy ba mu njëkk ñëw. di waxtaan ak yow ni ngay jaayee ni ngay defee sa sa sa vie affaire yooyu noonu ak jamono jii nii tey tey tey tey boobu ba léegi def na at euh, tey lan nga yëg sant am na changement am na yokkute lan lan daal nga yëg wax ko mbokk téléspectateurs yi lay seetaan ndax ñoom dañ lay safoo bëgg xam tamit bon yow naka naka nga naka nga jàngatee mbir bi ak naka nga ko dundee daal waaw. am na changement moom. yàlla na changement bi yàlla yàlla yàlla na gën a yokk. yàlla may ñu wér ak wér la waaw commencement bi ñu def vidéo maak yow vidéo yi dafa mel ni sax dama ko mën a waxee moom la nit ñu doon gën a seetaan ko vidéo yi mujj yi dëgg la parce que yow yaa xëy na yaa am gën a comprendre xëy na tam yow laa gën a miin que yow laa gën a mën a waxal que moo tax waaw dëgg la dëgg la dëgg la donc changement am na changement am na après tamit àll bi tamit day xaw a day xaw a naqari xam nga man tamit maa naqaree àndal waaw naqaree àndal de. ah naqaree àndal ah, si àll bi. dëgg la waaw dëgg la dëgg la dëgg la dëgg mais changement am na booy bon gis nga sa bopp par rapport ak nit ñi nga xamante ne tey jii découvrir nga leen xam nga leen ñoom tamit xam nañ la wala gisoo sa bopp. xaw naa man chaque jour du ñàkk mën a gis sa bopp man chaque jour rek maa ngi sa bopp. dëgg la mu mu bari tam maa ngi sa bopp maa yàlla moom. dëgg la hmm. connaissance bi yokku na wala yokkul. waaw yokku na moom. Hmm. bon lan nga yëg si connaissance bi am na si ñoo xam ne ba léegi yaa ngi téye ak contact yaa ngi garder ak contact ak ñoom yaa ngi déggante ak ñoom wala. koo xamante ni daf maa daf maa wala xamante ni gis na li may def neex ko moom tamit ñuy woonte di may jàmmante di ma ànd di ma ah, ah, yaa ak ñoom quoi. kon am na waaw. ak ñi ah. xamante ni ñu ëpp dama leen liggéeyal. ñoom ñu boole mag ay nit nit nit nit. ñoo xamante ni dañu naan demal si Iran lu leen kii dañu naan Iran ñoo xamante da leen liggéeyal quoi man waaw dama leen liggéeyal ñu gis seen bopp ñoom ñooy boole nañ ma mën a boole lu ëpp ay nit ñoo xamante man benn nit bu ma ko liggéeyal rek mhm. su gisee bopp dina boole ay fukki fukki fukki nit yoo xamante ne xamu leen xamoo leen quoi léegi ñooñu jëlee foofaat waaw man moom loolu xam naa si dara ndax man boobu ba léegi sama téléphone sax day sonné gars yi dañ may woo ma ma jox leen sa numéro ne leen bon dem leen ngeen contacter Iran bu ngeen ko contacter lépp lu ngeen bëgg moom dina leen wax ma xam mën na ne wala mënul nekk chaque jour tamit nit waa ma ne la moo tax Zéto la moo tax see ma ne ñoo ngi fee kay xëy na ma doon dallu rek ak xëy ñoom jëriñoo nekk seen kii moom yeneen affaire quoi waaw si si ñun gàllankoor bi su ñun la woon bu ngeen namee Iran bu ngeen ko géjee gis su ñun la woon nekkul woon si moom dégg ngeen ko wax na ko moom tamit ah donc Iran Euh, nga wax euh, dafa am ay nit yi nga xamante ni yéen a ngi déggante ba léegi contact bi yéen a ngi koy garder ba léegi ndax lan dafa am loo leen woon ñu ñeme la ba tey jii nii ñu garder contact bi tey li nga séq ak ñoom si wàllum faj wala si wàllu tegtal ba tax ñoom ñu lay boole ak ñeneen ndax dañ see gis seen bopp donc ñooñu noonu tey euh, ñooñu noonu tey tey yow ban message nga leen di lancer. parce que tamit lu ñu def yombut liggéey ak yow nga defal leen nga defal leen ñoom ñu gis ko ñu boole ak keneen mënoon nañu yemale seen bopp kese ñu boole ak keneen yaakaar naa ne ñooñu noonu euh, nekk nañ ñi nga xamante ni ñu gore te nekk nañ ñi nga xam ne ñu la yéene tamit waaw tamit li ngay def tamit dafa wér te wóor moo tax ñu sañ la boole ak ñeneen ban message nga leen di lancé di leen sant di leen gërëm rek mhm. ku ma romb dama lay ñaanal mm-hmm. da may ñaanal kon ni ma lay ñaanal yàlla may ñu wér ak wér le man bu ma sayoon kenn du feebar saa ba fay ñëw mm-hmm. bu ma sayoon ñëpp am wér dëgg la waaye ku fi ñëw tamit yàlla boole ma yow dama wala waree faj yàlla yàlla boole ak yow ku waroon faj yàlla ma yàlla boole yow dëgg la dëgg la dëgg la Iran yaakaar naa ne li nga wax foofu noonu am na solo mais man tamit dafa am loo xamante ni tamit bon bëgg naa la ko laaj Iran ñu ñu dugg si waxtaan bi tuuti rek mooy que Iran euh, dañuy dugg si wàllum faj bi si wàllum faj bi parce que man ba may fii njëkk ñëw maa ngi fàttali première vidéo bi dañoo jénn jël wan Iran ni muy dundee ci àll bi wan Iran ni muy doxaleek àll bi wan Iran ni muy def ci àll bi bañ ba ma fii njëkk a ñëw nga gàddu sa paan yor say jaxatoog say carotte say léeru nan yëpp ñu dem dugg ci euh, dëkk bi dem marché ngay dem di leen jox di leen koy jaay ba may njëkk a ñëw fii nii mm. donc après ma dem ba ci biir nga commencé di génne yeneen bagage maanaam di faj maanaam di faj maanaam ku am problème mu digg loolu moom da si am loolu moom si nga si am na ñu ko seede te tam am na benn vidéo boo xam ne génn def nañ ko benn xale bu ndaw boo xam ne papam def na si moom lu ne def na moom lu ne ba mu ko indee si yow nga defal ko fas ndigi si la pare xale boobu sax mu ngi si biir scène bi moom tamit seede na wax na ni loolu moom lu am la donc tey yeneen yeneen bagage génne ngay faj ay ndigg di ñaanal ay nit di ñaanal ay nit boo déggee man la di ñaanal ay nit mooy que ni képp ko am jàngoro bu ñëwee da koy tegtal ne ko lii ak lii lii ak lii boo ko defee loolu bu ko defee yàlla bu la mayee yàlla bu ci àndee dina euh, di di di nga di am jàmm man li ma gën a neex seew mooy maanaam à chaque fois nga naan bu ci yàlla àndee di nga am jàmm wala bu la jigee di nga am jàmm tey faj boobu noonu ba léegi yaa koy sikk ak nit ñi wala léegi dafa toog chaque jour ma am ko ma am ko fi ñëw ne Iran fajal ma sama digg wala lii al kii jour nag. kon faj boobu ba léegi yaa ngi si. chaque jour su yàlla sàkk maa ngi am ay kii ngi sant yàlla bu baax chaque jour jour bu yàlla nit ñëw fi ne Iran sama lii laay kii wala lii laa bëgg wala lii wala lii. ñoom la plupart si fan la ñu jëm si fan la ñu ndégg bi kese wala am na yeneen. waaw ku nekk li nga indi rek bu fekkee mën naa ko moom. <laughs> ma teg la si yoonal lii mën naa ko su ma ko mënul ma ne lii mënu ma ko ak loo ñëwee itam bu loo ma yóbbu wax rek soo xamee rek naa la wax xam naa si lii su fekkee xamu si dara mën na xamu si lii. xamu si dara euh, loolu am na solo trop mais Iran euh, man euh, si li ma gën a jàpp mooy que nit ñi la plupart man ñi may woo. dañ may laaj naan ma garabu ndigg bi. mais am na si ñoo xamante rarement dañ ma woo ma wax ay garabu dambal bi ñoom dañ ko soxla loolu tamit ba léegi muy am wala garabu dambal bi. aw bu njëkk ba dambal bi dafa amoon si àll bi sax bi yëpp am ay garab dambal mais nit ñi bu ñu koy yàqee ba yàq ko yow mën ngaa dem jëndiwaat sax toujours dambal pour defar ko pour ab comme ko bëggee la koy jaay duñ la jox loo xamante ni moo nekk garab bi dama koy am moo tax mais boo gisee du si gën a sawar ka par kii pour kii li ma fekkoon garab gi dama ko amal sama bopp defar ak sama bopp laa gën ko wóolu ko beneen garab ko nit joxoon ak ne ma lii poudre dambal la wala affaire yooyu poudre dambal am tamit da ngay am da ngay am garab da ngay defar man da ngay defar dambal bi waaw kon dambal bi man dama gis nii boobu ba léegi Euh, nit ñi euh, à part ndigg bi man moom lañ may ëpp liñ may laaj euh, su su leen boolee ak yow. yow ba léegi ñu ngi si insister wala. dafa am ñaar xeet nit. waaw waaw ñaar ñoo xamante ni. Mhm. seen bagage noonu la ko yàlla bindee kenn fexe ba mu yokk. exemple ah, affaire bi maanaam ah, damal bi day yokk affaire yi. am na yoo xam ne da leen di jig. Mhm. ni damay jox kii mun a ah inaa nga jox ko ni mën a loolu moo tax. sama su fekkee amu aw ma affaire bi du ma sax comme comme ni ma si woon mais fekkoon damaa tiim garab bi nii. xam naa ko baax xam na garab bi xam yëpp. d' kon ay góor kese ñoo lay contacter si dambal bi wala. ay góor ak jigéen yëpp. jigéen ñi pour la lan. jigéen ñi koy soxla comme ni ko yi soxla am na xam ne sunguf ñu soxla di ko lekk. Hmm. waaw léegi Iran à part euh, garab yooyu noonu yenn yeneen garab ñoo nekk si àll bi yi baaxee mbokk internet yi nga xamante ñoom ñoo lay safoo fii ci Pexxe TV. àll bi garab boo gis fii dara la yaa ko dul xam rek am yoo xamante ni suñu la nekk boo ko sangoo mu daj am na yoo xam day dindi umute garab boo gis am na lu muy jariñ xëy na yow yaa xamul xëy na am na lu mu si xam am na lu mu si xamul comme ni ma la koy wax rek li yi ni mu yaatoo nii mhm. man su ma xamee li kii xam na li kii xam li kii xam li waaye man de ku ma si jox nit ñu ëpp da ñëwaat si man moom parce que man naturellement sax ni mu mel la man maanaam garab bi dafa naturel quoi raxul dara déedéet man samay yow garab yi ngay defar bon garab yi ngay defar euh, garab yi ngay defar dafa am loo si rax wala ni nga ko buddee si garab bi rek noonu nga koy defaree jox ko nit ñi. non garab bi nag am na ñoo xam ne problème zone la am. Mhm. bu ma jëlee am na garab yi mooy micro bi waaw boole ko ay karité affaire yooyu. micro bi waaw boo koy kiiyee yu métti affaire yooyu. ah que am kenn ku ma laaj mu ne dafa am ay problème mu ay tànk yu métti yooyu noonu. loolu loolu ñi ma si faj bari na. li ma si faj comme ni may ndigg yu métti yi comme noonu rek. comme ay tànk yu métti ak yooyu noonu. di ma siy faj chaque jour ma gis ay maire ak ay kii am na ñu ku di nga yónni sa sët wala sa doom wala si kii asala place Palmas ma lool fii sax xamee lañ ma lool fii dañuy yónnee fu hmm. am na ñu nekk bitim réew am problème mu tànk di la di la woo nga leen di defaral affaire defaral ah, may moo ko may mhm. ma koy sant yàlla bu baax dëgg la am na nit day jóge bu Europe boole maag nit moo defal ko si GPM yóbbul ko ay bagaasam mu ñëw na gis naa sama bopp boole maag ak keneen. mooy problème ndigg yeeg genou yeeg. cheville yeeg yooyu noonu yëpp day naturel quoi. garab kese ak garab yi si àll bi laa ko defee. garab kese la kese ak karité. ban xeetu garab la. ah garab la rek garab comme garab <laughs> Iran rek ah. sama gars maa ngi moom nii la yàgg mel de Iran day nëbbu de maanaam boo ko waxee ban xeetu garab la boobu nee naa garab rek. waaw lu tax loolu Iran boobu ba léegi lu tax ngay nëbb ab secret yi xam nga garab bi sax nëbb ma secret de ah. comme ah. garab dambali léegi fu ñu jëm maag ba am dambal bu day xaw génn sax nit ñi yàq ko dëgg la ba dee ba xam ne man mii lu tax secret bi lu tax non maa ngi wax secret parce que secret waxuma la secret xeet garab bi laa bëgg xam nga niim la wala garabu lan la garabu tubaab wala garabu niim wala garabu xotti biteel faj lu bëree bari gis nga garabu nii. non yuy faj zone yeeg sa vie yeeg yooyu noonu wala yooyu da koy préféré denc. non yow koy denc. <laughs> yooyu maa koy kii sama yëfu bopp la woon mais àll bi laa koy jëlee <laughs> Ira yaakaar naa ni am na solo lool donc namoon ngeen ko bon ñu moo ñu waroon def benn affaire bu ndaw rek waxtaan euh, euh, partager ko ak yéen donc Ira xam-xam bi man daf ma jaaxal parce que man ak yow boobu ba léegi ñuy ànd mais man gisuma si yow loo xamante tey dépp boobu ba léegi boobu ba léegi gisuma si yow loo xamante ne tey. maanaam damay ñëw nga may won ay wanu man mën naa faj comme tey yenn sëriñ yi euh, niñ koy defee ak yooyu noonu xam nga ñëw si ñoom ñu lay wan ne man lii laa wala lëla laa wala boobu ba léegi ñuy ànd maa ngi gis ngay defaral ay nit ñooñu di am ay tan surtout ay fas ndigg yeeg yooyu noonu ñooñu di am ay tan mais mosuma ñëw si yow nga changé comportement di ma wan ne man yàlla may na ma di ma wan ne waaw waaw xaar xaar may kale di ma wan ne di ma wan ne yow man yàlla may na ma daraja wala yàlla may na ma xam-xam bi nga xamante ni képp ku ñëw si man rek man dama koy faj mu wér quoi maanaam doo ngan na ngandalu si man quoi ba léegi da nga naturel doo changé lu waral loolu Iran loolu de bis boo ko da tey def yàllaa torox loolu kenn mënul fexe ba mu def xel ndaw sax bu fi ñëwoon si laa gën a mën a oyof oyof man loo ma gën man kan moo ma gën a mën a xam ma sori boo ma jegee doo xam nit mënu fee ñëw ba ma ne la lii laa wala lii wala nii laa mën wala lii kenn mënul fexe ba ma def loolu yow yaa xool ba si na kii am na lu ko yàlla may mais man sama bopp lu tax wala nit ñëw ba nit ma ne la jox ma fukki junni jox ma ñaar fukki junni jox ma lii dama la nax su waylu su ma ko waxee xam la moo tax mm-hmm. ma damay ñaan yàlla rek léegi bëgg laa santaas si xaas boobu léegi su yàlla nangul loolu damay ragal moo tax loolu lekk si loolu xamante toujours dama lefa loo xamante nii damaa bëgg sa xol sedd si sama xol sedd si man loolu rek laa si jublu mais dara mais chaque jour maa ngi am lu may lekk maa ngi am lu may naan yaa ngi sant yàlla bu baax a baax macha yàlla na sant yàgg Iran yàlla na sant yàgg donc Iran ma la yow mosoo ngan na ngandoon nga ne yow loolu doo ko def euh, doo ko mës a def donc loolu mu nekk loo xam ni tamit nit ñi comme li nga wax léegi-léegi ñoom sax dañ la koy seet naan Iran man ni ma ko gisee ni ma ko gisee ak ni muy waxee man borom bopp la man ñu bëri dañ ma woowee dama ko wax naan borom bopp la du nitu neen surtout koo xamante ne ku dëkk si àll bi ñoom par rapport ni ngay duggee si teen yi ni ngay jàppee euh, euh, jaan bi ni ngay jàppee ni ngay jàppee yeew yi ni ngay jàppee bari ñoom ni ñu koy jàppee ak kakatar yi ni koy jàppee ak lu mu yombee ak monaat yi ak fi ngay dugg si teen yeeg di dugg si séyaan yeeg si yooyu noonu ñoom nee nañ loolu moo tax ñu xool Iran par rapport ak ni ngay waxee tamit ñu xam ne yow doonati neen et pourtant mënoon nga nekk nit bi nga xamante ni boo defee loolu ba pare boo defee loolu ba pare génn ngan na ngan na comme yenn sëriñ yi wala taxaw di wax lu la neex naan maa fi ne maa def lii maa def le mais da ngay jàpp sa jaan wala jàpp sa yow jàpp sa bar ñànk dox sa dox boo ñëwee toog wax ni nga ko jàppee boo paree dem ñibbi loolu noonu yaru daara bi la wala loolu noonu dafa yàgg nekk si yow wala yar bi nga xamante ne sa jur ñoo ko def si yow. waaw man nag wax dëgg yàlla loolu lañ may rek hmm. man boo ma jéegawul doo xam si man dara xanaa nit ñi mën ngaa romb nag Iran lii Iran laa laa lay lay mais boobu romb boobu fekkoon tey jii rek naan kii du Iran. la ngay ñëw si a mën a oyof parce que du ma def benn xam ne sax di nga ne kii lii la xam ne lii wala xamul lii mais xam naa li ma xam moom. Hmm. bari xëyul sa mbob bi si li ma la ko mën a waxee. dëgg dëgg la. mais la xam bari na lool. mais Iran tey yan garab nga ñu mën a waxaat yoo xamante depuis boobu ba léegi ñu ngi def vidéo waxoo ñu ko tey nga war ñu ko wax yan garab la yoo xamante day faj garab yi faj bari na wax naa la àll bi mais am na loo xamante ni peut-être mu ngi faj yaa ngi ko doon nëbb wala daawoo ñu ko wax tey lan la war a mën a doon non du ma nëbb garab bu nekk rek ak ni mu lay dikkee ak ni ma koy laaj ak ni ma la xewee ak fi mu am ak fi mu amul am na xeetu garab yoo xamante nii amul fii am na seeneen côté dëkk yi nii sa amul fii yooyu sama soxlaa fekk xam na lu ma si kii dama koy yónnee ñu indul ma ko fekk. d'accord mais am nga am nga garab yu faj ay bët yu métti. bët yu métti xam nga lan moo si gaaw lu koy faj am na garab yu koy faj. bët yu métti. waaw loo xamante garab la. comme garab yi naturel yi comme garab yi rek. garab yi la yan la yan la. waaw si garab yi la nii rek dama wax ay benn garab ma naan ma naa bàyyi wax ay garab yi yooyu wax ay garab yi. Euh. gars yi dañuy jàpp garab yi di def li si bokk ak li si bokkul. da ngay bañ gars yi ëppal si quoi def loo xamante ne naka su dul noonu la quoi loolu nga si daw. donc képp ku la contacté garab boo nekk. Uh-huh. ba si kàddu geeg. ba si uh-huh. yëpp ay umuteeg. Uh-huh. yëpp lay dindi. kàddu gee ngay gis ne lu bëri nga si biir kàddu yi. lu bëri maanaam benn garab mën na faj lu bari xam nga moo tax loolu laa lay xam nga garab yi mën naa see xam ne man lii lay faj. micro bi waaw. kii xam si lii kii xam si benn. yàgg ngaa wax boobu boobu wax boobu yàgg nga xaa wax waaw wax yàgg nga xaa wax. benn garab mm-hmm. bul ne lii rek lay

kee wax lee kee wax lee jël loolu bu ko utiliser comme xam-xam. d' accord d' loolu mooy waral léegi nag ñoom am na ñoo xam ne tam dañuy tànte léegi da giraa man kee day giri nee na lee lay faj booy bee ne lee lay faj ma dem uti garab yooyu di ko jox nit ñi parce que nee nañ ma lee lay faj rek. dëgg la ay ay yu riir. wax naa la yooyu parce que des ngay gis ay nit seen nopp yi day riir day yuuxu. loolu am na ay garab ay garab yoo am ay nopp yu bët ak affaire yu ah. gën a gaaw. Mhm. mais nag aw ma ko ma mais lu ma si gën a gaaw. danga koy ma bay jàpp kii ba mbët. keresu mbët keresu mbët. ba mu noppi metti da koy kii toqal di ko toqal moo si gën a gaaw mais amoon na. keresu mbët quoi. keresu mbët si boppam bu dee ay noppi yu metti. yuy riir yuy yuuxu wala yuy metti. moo si gën a gaaw boo amee gereesu bëtt di ko si toqal nii da koy dindi waaye nopp yi bëtt yi am na yoo xam ne seen nopp day seen mel ni koy amal gereesu bëtt macha allah euh, Ira man lii moo tax mu neex ma parce que euh, moom bokkul ak yenn sëriñ yi nga xamante nii macha allah dañuy ñëw bon ne la garab bi mun naa ko faj da war a ñëw si man Iran da nga koy laaj mu ne boo defee lii lii dina la si fekk wala boo ko munul def boo ñëwee ba si moom moom mu expliqué la ne nii ak nii nii nga koy defee te doo si sonn doo si fere lu bëri man yàgg naa ko wax doo si sonn doo si fere lu bëri mais ñun sénégalais xaw ma lan moo tax ñu bëgg lu metti xaw lan moo tax ñu bëgg maanaam lu jafe et pourtant Iran mu ngi nii dafa yomb affaire yi dara méttiwu si comme li ñuy wax ne ñun faral di toog di àll bi garab yi lépp si lay jógee lu naturel la tubaab si la ñuy jël dem defari ko bu paree ñëw def ko ay comprimé di ñu ko jox ñun ñu koy naanaat Iran mi nga xamante ne moom loolu yàlla may na ko si dara man yaakaar naa bu ñu ko waxee wala mu ñu koy baaxee loolu war nañ ko mën a partagé loolu war nañ ko mën a jëfandikoo ba pare di ñëw si moom mu ñuy gën a dimbali ndax yaakaar naa lépp rek génnul gàncax bi donc Iran yaakaar naa loolu am solo